tay dañ fi euh woon euh, doon càmbar euh, élection yi nga xamné ne génn nañ ci muy élection législative mu nekkoon élection yu ama am am solo euh, ngir ñu waxtané ko def ci suñu jangat wayé waajal surtout fi ñu moy euh élection présidentielle 2024 xam nga 2024 c'est maintenant comme ni ñu koy waxé motax instant yi focus bi ci 2024 rek lañ ko teg action bu ñu mën di poser moi pour gagner 2024 dès le premier tour parce que xam nañ c'est à notre portée. 2016 ba légui ña ngay wër lan lañ mëna a ci ndodd Ousmane Sonko def nañ ko talafis, def nañ ko wahhabite def nañ ko rebel, def nañ ko euh, euh, euh, créé nañu ay force spéciale ji jiiñ nañ ko viol lu lu nit xalaat ak luñ xalaatul tek nañ ko ci dëram. Lool nak li firndel li muy firndeel mooy seen pexe jeex mais li am solo mooy am nañu candidat bu mat candidat ci fànn yëpp am nañu parti bu mat parti am nañu ambition bi am na loo xam ne dañ cee liggéey ay at te amul dara lu tonni tarfatul ay ni ginnaaw yàlla lu ñu mën a tere yegg fi ñu jëm